دبي السلام عليكم رحمة الله وبركاته سنو نجل بينو كادو نينكو باخو دفة مو يكتي سنو يغن تد اك سنو زيارة يغن سل جميكو تي سنو كليفة يتي يونو يبو تي سماحات الخليفة الشيخ سيد المختار نكتا بابا يوينيو اك زيارة نونكو يجار تي سنو يويجو di sunuy sëriñ yu bax yi nga xamne ñu nekk ci jotaay bi di góor ñi ak jigen ñi sama bokku yi ma bokkal sëñ Abdullahi santoon nañ ma buñu accé fi ba sëriñ khadim nopi ñu def ben taqib ci li nga xamne ne la doon wax te ñu xamalon mani limi waxtane moy al muriduna في الواقع السنغالي الحالي لمغيد مغيد دان الكونتكست السنغالي اكتيل لولو منسنا بو ابوردي سي نياري انام سي انام بو باخ اك سفان با مو ملني استاذ خديم سي عرض بيم داف نيونا لو باري سي سلبيات ييغا خامني امنا سي تخاواي موريد يي ci contexte bi ñuy dund ci réew mi waaye man ci ay tomb yu gaaw dana xool aspect bi nga xam ne mën na ko tudde euh, ay ijab yi jàpp c'est-à-dire murid yi li ñu représenté ci réew mi ci angle yu bari mën nga koo aborder d'abord ci wàllu démographie ci wàllu population bi réewum Sénégal nit ñi fi nekk ñun murid yi lan lañ ci représenté xam ngeen ni Sénégal ñetti principalement ñoo fi l'islam euh, le christianisme et l'animisme Nous ñi représenté Sénégal au moins 95% de la population c'est-à-dire téeméeri sénégalais yoo jël statistique yi ëpp li ñu wax mooy ñi. juróom ñeent fukk lañ ci ak juróom ci biir jullit ñi léegi génneel chrétien ak animiste ci biir jullit ñi dinga fekk murid yi représenté ci trente cinq pour cent gën ngaa néew ci statistique yu nga xam ne banque mondiale moo ko joxe xam ngeen ne ci jullit ñi aussi dañu séddali ko ay kuréel yu bari bokk na ca tijaan ñi ngi fi xaadir ñi fi ak yeneen yeneen ci mot jamee ci ñett confréries yi nga xam ne ñu ëpp mbooloo ci réew mi muy yoonu murit yoonu tijaan ak xadir tijaan yi ñoo ëpp ci biir jullit ñi ndax 49 pour cent lañu mais bu boobaa da ngay boole obédience yépp maanaam boo jëlee lii tijaan ci réew mi ñuy askano Tiwaawoon ñuy askano euh, Kaolack ñuy askano Medina Gunaas ak yeneen kër yépp da nga leen boole ñu doog a représenté 49 pour cent ci jullit ñi Euh, bu dee murid yi rek kese kese danañu nekk 35 pour cent gën gaa ce qui veut dire que bépp kuréelu boo jël ci réew mi gam-gam la koog murid yi murid yi ñoo lay ëpp ndax ñoom à seul rek représenté nañu 35 pour cent te pour tijaan yi mën a ëpp murid yi ci réew mi il faut que ñu boole obédience yëpp déjà kon du point de vue démographique gis ngeen doole ji nga xam ne télé bi suñu waaye am nañu ko ndax boo leen tàqale da ngay daal di gis ne ñoo fi ëpp loolu lu am solo la c'est une donnée très très très importante bu nga xam ne war nañ ci tenir compte ndax dafa am euh, ce qu'on appelle les facteurs de force euh, awaamil quwa li nga xam ne mooy joxe kàttan te nation bu ngeen gis mu am kàttan yooyu daf ko matale daf cee bokk mooy euh, le nombre mbooloo mu bari boo ñëwee ci wàllu diine xam ngeen ni Touba ci référence yi ëpp doole ci réew mi la bokk

représenté nañu 35 pour cent waaye population Sénégal la sociologie du Sénégal euh, murid yi fépp la ñu tas fépp la ñu nekk xeet boo jël ci réew mi ay murid am na fa bo boo jël ci réew mi ay murid am na fa euh, lakk boo bu ñuy ci réew bu ne ay murid yu ca bokk ña ngi koy lakk euh, corporation boo gis maanaam métier yi ngay gis yëpp murid yi nekk nañ ca te bu ma ci contexte économique bi da ngeen gis bu baax li nga xam ne représenté na ko bu dee ci wàllu culture gis nga murid yi ni ñu marqué réew mi doy na ci pour nga xam ñun li ñu li euh, ñu li ñu li ñu doon dans le contexte euh, sénégalais actuel mooy façon de parler murid yi ni ñuy waxee seen façon def yi ni muy commencé bay wàll yeneen ñi nga xam ne sax duñu ay murid euh, ndax not guñ ci not ak way guñ ci way ci misaal Eh, am nañu sunu benn jargon bopp boo xam ne ci murit rek nga koy dégg ay eh, sant sëñ beeg eh, xéewal ak yàlla baax nag terme yu demee noonu yoo xam ne dafay dema dem ba wàllu ñeneen ñi ak ku baax a baax sëñ bi ziyaara naa la ak soxna si ak sëñ bi nga xam ne duñu saalalu kenn ba ci ñoom entre ñoom seen bopp sax dañuy joxante cër yooyu dafa defa dem ba yeneen xeet yu bëree bari ci biir réew mi ak yeneen ñu bokk ci yeneen askan commencé jël loolu waaye dem na ba ci suñu culture suñ façon de euh, sol bi nga xam ne di danañ koy sol ak façon naan bi nga xam ne danañ koy naan lu mel ni café Touba bari na ñoo xam ne euh, café xamuñ ci leneen lu dul Touba xamuñ ci leneen lu dul Touba te pourtant doonut loo xam ne waxuma la murid yi ñoo koy liggéey waaye Sénégal sax béyewuñ ko fi fu Brésil lay jugee Côte d'Ivoire ak feneen ak feneen waaye euh, utiliser bu ko murid yi utiliser ak way buñ ci waye fonk buñ ko fonk dem nañ ba imposé loolu ci seen seen ci ci seen euh, biir euh, réew seen biir yi mbokk seen biir yi xarit ba ñeneen sax dañ koy naan ba nga xam ne dem nañ ba askan la ko Touba nga xam ne léegi euh, lëbel la lëbel ci boppam moom la représenté Europe ngay dem fekk fa ay murit dugg ci baar te su ma nee baar Europe ñi fa dem xam nañ li ma bëgg a wax ci baar mooy barab boo xam ne du sàngara rek lañ fay naan mënees na faa naan café mënees na faa naan meew mënees na faa euh, wut lu bare bare bare bëri barab la boo xam ne naanukaay la lu ne nag mënees na ko faa naan waaye da ngay gis murit ci biir Europe sans complexe ci biir tubaab euh, sol yére yi wolofam ay dàllu marakis double talon léeg-léeg mu boole ci maxtuume wala kaala gu rëy rëy wala mu laafa dugg ci biir tubaab yi naan sàngara muy naan café tubaab yi carte moom muy jàng xasida loolu sans complexe la lu sëñ Tuubaa def ci euh, ñoom la bu ñëwee ci wàllu contexte politique Oustaz Khadim tudd na ci lu xaw a am solo euh, influence bi nga xam ne yoonu murit am na ko ci réew mi bi ñu naa sànq ne question yu bëree bëri des questions d'ordre national état bi benn état na la wax ci régime yi fi jaar yëpp duñ ci jël ay décision yu nga xam ne si consulté wuñ la xalif général des mourides wala bu fekkente ne njuumte am ci def ko bis bu ci xalifa bi danañ ci loolu histoire relation yoonu ak état du Sénégal ci fekk ay misaal yu euh, dana ñu rek régime yi fi jaaroon kenn ku nekk autorité suprême bi nga tombeeloon ci yoonu euh, moom nga doon ëpp looy euh, diisool moom nga gënoon a xel ci li nga ne doxal du hasard ci Senghor bu joxee cër sëñ Fallou cër bi mu ko joxoon tëdd woon ak jullit dem ba xamal boppam ci loo xam ne ñaar xamee na ko ci mooy ay papier yu mu fekk ci bureau en tant que président de la république muy archive yu fi tubaab yi bàyyi ci li yoonu mu murid représenté ci réew mi ken yi ku bëgg jiite réew mi sa jiite dal neex faaw nga tenir compte ci ñoom faaw ñu ànd ak yow Senghor dem ba xam ne ak loo xam ne expérience boppam moo ko ko wan ci lu mu dund ak sëñ Fallu sëñ wan sëñ Fallu wan ko bu mat sëkk wan ko su mat sëkk ba mu xam ne yoonu murit ku ñu kontaan ci réew mi sax nekk fi du neex loolu moo continuer diggante Abdou Diouf ak Serigne Abdou Lahad ca ba nga xamee ne la expliqué trois mois yu ne en tant que njiitu réew mu bàyyi mu bàyyi koo Dakar ñëw fii yandu fi consulté Serigne Abdou Lahad ci ay dossier état dossier Sénégal yu bëree bëree bëri loolu moo continuer naturellement ak Abdoulaye Wade ak Serigne Salih ak Serigne Saalix ci euh, moom daanaka ñun sax lu gën a fréquent lu lu loo xam moo gën a ëpp Abdou Diouf daan ñëw jamono Serigne Abdou Lahad mais xam nga moom da naan lu normal la parce que murid laa ju demee noonu waaye daf ci am yoo xam ne ñoom sañ bañ la murid bi ak tëddul murid moo ci yem ay archive la yu ñu fekk yoo xam ne yoonu murid képp koo xam ne ni contre nañ la bépp pouvoir bu ñu contre te dëggantaan laa wax contre bu wér a wér sa nguur du neex ñoom xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax ñi ngeen di dégg ñuy wax ci média yi lañ digal ay moor ak yu bëree bëri yooyu c'est-à-dire que li sëñ Abdou Khadir Kébé wax sànq ci commentaire bi mooy li am xam nañ le pouvoir des marabouts sëriñ si li ñu représenté ci réew mi ak ni leen ñu nun ñu déggale ak ni ñu influence bi ñu mën am ci wàllu ay élection ñu jëm leen a naturaliser xam nañu ñoom bu ñu neutre pour régler ak seen i adversaire dana yomb ñu daal di tiital sëriñ si tiital leen ci ay yu bëree bëree bëri yoo xam ne xëy na waxtu du may ñu jaar ci ci wàllu contexte ci walu xam xam-xam ak xalaat yoonu mourid naka jek yoonu buy produire la xam-xam la lolu depuis ku bax ki ba ci cheikh si nga xamne ne si moo leen formé les grands dignitaires de la confrérie ak doomi seigne Tuubaa ñu ci bari ay bind kat lañu ay gëssu kat lañu yoonu mourid li am ci walu ay ressources intellectuelles fi ci réew mi amul benn kurelu diine buy askono ci l'islam bu ko am ben tay li lay wutal ak kilifa mourid un leader d'opinion mourid ak benen budul mourid yaa ngi koy xamee ci bu joxe moo dóor du jotee moo door du jotee kuréel beneen boo dem lu ci ëpp en tout cas bis bu kilifa nga jëlee kàddu gaa yi dañ naan mat dalil mat dalil fu mu ko teg am loolu lañ lay wax wala sëñ bi euh, euh, day bëgg nag day bëgg nag tey néewaa nga jël kuréelu mbooloo moo xam ne dem na bay tëkkaleeg boppam ak yoonu murit te boo ko gam-gam lekk waxuma la euh, joon wi laa waxat mais kenn ci sëriñ si rek ci seexi yoon wi ngay jël teg ko ne jël mbooloo mooma yëpp teg ne mbooloom sëñ boobee ak ay talibam ëpp leen tey na ko ay talibam di déggale ñooña ña ko topp duñ ko déggale noonu duñ ko déggale noonu boo ñëwee ci dans contexte international murid yi li ñu représenté dans la diaspora euh, kenn xamuñu toll immigré Sénégal murid yi ñoo ci ëpp euh, li ñuy dugal ci réew mi ci wàllu koom li ci murid yi représenté kenn xamuñu mu toll maa ngi fii rek quelques données yoo xam ne pour jox leen exemple Euh, boo xoolee ci wàllu koom-koom euh, depuis bi nga xamee ni euh, yoonu murid jox na gëdd bi mu jox à travers les enseignements de Sëñ Touba liggéey nga xam ne doonatul rek daanaka looy def pour dund waaye dafa jël liggéey def ko sacerdoce nga xam ne ak jaamu yàlla lay doon nga xam ne. Eh, ci lislaam ni ñu lay waxee ne bépp jëf boo xam ne def nga ko te yàlla tax dafay daal di nekk jaamu yàlla sëñ bi ci philosophie am daf lay wax ne le lépp loo xam ne nii da nga koo def ngir yàlla tax te yàlla tax wala nga jublu ca eh, eh, xidma doomu aadama yi day daal di nekk ak loolu ma ne moo dama dem ba jural yoon wi tey li mu am doole jëm am ci wàllu koom-koom ay jamono da ngay gis ay opérateur économique yu nga xam ne ay murid lañu liggéey ci réew mi lu bëree bëri loo xam ne nii waa na tey nga mënatul ay réalisation yoo xam ne ni ñoom duñ ca bokk tak Papa Lambaye ñu bëree bëri xam nañ ko murid yi ñoo ko sanc ay bawol bawol yoo xam fii lañ jóge woon ci bawol dem Dakar sans complexe di jaay café xeeti liggéey yu nit ñi daan xeeb ci jamono yi nga xam ne ñi tubaab yi formé ñoom jàpp nañ liggéey bu dul bureau rek euh, nit ku yiw waru koo euh, waru koo def dégg ku ku am maanaam waru koo def ku bokk ku tekk dara waru koo def nga xam ne jaay kafe ci mbedd mi wala jaay caaf wala yonuy saabu liggéeyu baadoo la liggéey ku jëmul fenn ku ñàkk ku ñàkk lañ koy daan jàppee murid yi ñoom amuñ woon rëy def loolu lépp loo xam ne nii dagan na mënees na caa tedd yàlla ko pour ñoom liggéey la ñu daan def loolu ba loolu moo tey boo demee pàpp la mbay ñoom ñoo fa dominé lu bëree bëri ci koom mi ña fa nekk ay murid ñoo ko moom employé ya fa nekk murid yi ñoo leen ñoo leen yilif danaa ci tudd ko mel ni El Hadj Babacar Kébé Ndiouga ñëpp xamoon ko El Hadj Mbay ku mel ni El Hadj Mor Turam ku mel ni Alassane ku mel ni Abdou Karim Fall Serigne Sall ak Baram Mbuub bi nga xam tay moy bàyyi Serigne Mbuub tey boo ñëwee ci misal euh, ci walu euh industrie da nga fekk 70 ci entreprise yi nek zone euh, zone euh, zone industrielle bu Sodi euh, bu Sodiba euh ci Dakar 70 pour ñoom mom murid yi euh, entreprise yooyu nga ñëw ci wàllu euh, artisanat di nga fekk 7 sur 10 ci ay activités artisanales euh, murid yi ñoko yilif 7 sur 10 bu doon fukk la juróom-ñaar yépp murid yi ñoo ko moom. Euh, boo demee ci cordonnerie bu Tilène fa ñuy ëweeg di rabak yu demee noonu 6 virgule sur 10 yépp ay murid ñoko mom moom ci wàllu cordonnerie ba ñuy def fofa lolu euh ko waral moy lañu señtu ba Tuubaa moy fexé ba mom sa bop señ xarim bi ñu ko señ jiir ci si waat ci moom sa bop ci fan yépp ci walu kom ci walu xalaat ci walu pass pass ci walu euh, nekkil ndax señ bi jangalon nañu ne euh, bis bu ngeen euh, lepp lu ngeen amati ci lu ngeen naal da ngeen di fexe ba yeen ngeen man ko defal ko seen bop ndax na len dimbalé ba jàmbur du ñëw dinañ ko defal te bu len ko jàmbur defalul na len may ëlëk ngeen mëna mom seen bop joxewaat na ca misaal loolu mooy lu mu ñu jàngal muy enseignement théorique mais daf ko pratiquer ñu gis ko ndax eh, bi muy woote jumaa ji woote bu njëkk ba sas yam sase woon ci ñaar fukk ak juróom ñett ya noonu la ko sase woon ay taalibeem la ko sase ba ji soxna yi sax ñi nga xam ne si eh, dañoo nekkoon moomuñu woon seen bopp eh, yilifuñu woon seen bopp dañoo nekkoon ci biir kër ga ak ñu daan yar sax dañ daan dem ci àll ba di jeexaat yi ngir mën a am ñaar fukk ak juróom-ñett nga xam ne muridi ci diir bu gàtt dajale woon nañ som bu baree baree bari ba jëbaloon ko sëñ bi pexe tubaab yeeg dogalub yàlla xëy na moo tax mujjul woon tàmbali ca ca ca ca bi ba loolee som boobee ba mu dajee ba leen sëñ bi woo ca la leen waxaale loolu ne leen dama leen doon woon aw yoon nii rek la ëllëg lu lu ngeen amati ci naa na ngeen ko defee nii ndax dana leen tax kenn du leen euh, manal ndax ku la manal sañal la te ku la sañal fam lay yóbbu euh, kenn du ko xam kenn du ko xam philosophie boobu ndigal yooyu ci la murid dox à travers euh, ci njiital seen i xalifa yi nga xam ne ñoo leen jiitoon sëñ Mourou Moustapha xam ngeen ne foofu ci yoon wala jaar ak murid yi ba def réalisation yi nga xam ne en un temps record murid yi def nañ ko euh, doy na ci secret rek mooy raay bi nga xam ne nañ ko ci Touba ci jamono yi nga xam ne le contexte n'était pas favorable parce que y avait la guerre mondiale y avait la récession des années 30 ak xeex bi nga xam ne tubaab bi mi doon xeex taxaw pour que pour que projet bañ am waaye ci pas-pas ci gëm-gëm ci doyloo sa bopp ci gëm sa bopp murid yi ànd ak seeni njiit yu ko mat taxawoon nañ loolu bu wér a wér te bu leen fàtte ni naal bi nga xam ne mooy Touba nek li gëna représenter la force des mourides li yoonu murid représenté ci rewmi mané touba bi dafa bokon ci politique bi mu don def euh tubaab touba baña am ag fi mu ag tay nga xam ne loolu du woon ay ñaan wala ay pexé waye politique la won dafa bokon ci sen politique amono ben rapport bu nga xam le commandant de Diourbel bindoon non ko jamono euh gouverneur euh, euh, de Dakar euh diko ci wax Touba ñoom nu wara fexé ba du màgg ndax su màggee du bax ci Diourbel parce que boobu Diourbel euh, cercle la woon c'est-à-dire division administrative la woon seen seni seen administration bu Touba màggee euh, lolu ça va ça va se faire au détriment de Diourbel ñu né wayé ak tuuti ay effort meun nañu réussir ci lolu ndax bokku na ci moy Touba zone bi mu situé wu euh, dimbalewu ko ci mu mag bokku na ci moy dafa sori lool diggam ak fi nga xamné amna ndox fu ñu mën di naane mat na 40 kilomètres boo ba ca topp mooy dafa enclavé woon maanaam benn yoon jëmu foon euh, ci ci Touba du raay du tali du dara waaye mm, Serigne Touba ginnaaw ñaanu yàlla gu gu nangu woo xam ne nangul na ko liggéeyam ak it njàngale moom jëmbat ci ay taalibeem te ñu dégg woon nangu koo jëfe moo dema dem tey ba li nga xam ne Touba représenté ko ci réew waxuma la ne weesu na Jurbel waaye Dakar mi nga xam ne mooy capitalu Sénégal rek moom ngay mën a jël ci dëkk boo xam ne nii moo ëpp Touba dina ci ma jox leen exemple rek ne la ci wàllu électricité ak wàllu téléphone pour nga am euh, li Touba di génn ci yooyu ñaar pour nga mën a am lu ñu toll feneen fu dul Touba di nga dajale région Diourbel nga génn ci Touba maanaam département Bambey ak département Diourbel nga boole leen ak région Louga ak région Thiès la fa nekk ci ay abonnés ci secteur ci opérateur yi ma leen wax ci ay téléphones pour nga am lu ñu toll faaw nga dajale ñooñu doo ko mën a am lu toll noonu. Euh, loolu nag doole la joo xam ne ni ñaanu yàlla gu nangu mi ngi ci waaye murit yu dëggal ñu ngi ci kon ñun am na lu ñu tekk ci réew mi ñun talibé Sëriñ Tuubaa yi am na lu ñu tekk ci réew mi loo xam ne suñu sëriñ da koo liggéey waaye tamit suñu kilifa yu ñu jiite woon wane loolu wane loolu nu nit nu nangu caa topp léegi nag loolu am na yuñ ci ñàkk bokk yi am na yuñ ci commencé ñàkk de ndax euh, bu leen fàtte ni euh, ay jamono ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi dañ daan disoog waa Touba daawuñ euh, leen euh, ñàkk suuraale ci loo xam ni réew mi moo ko moom la ko waraloon mooy fii ci Touba ay kilifa yu ko matoon sëkk feesoon dal jataay bi daf fee nekkoon sëñ Touba dong fe seen bët dara yi poñitum àdduna muuru leen dara mënu leen a euh, gondi comme ni ñu koy waxee dara mënu leen a gondi du alal du pouvoir du nguur du dara sëñ Touba rek lañ gisoon boo fi ñëwee di àdduna dañ lay won ñaar dañ lay won doylo gi fi nek ak teraangay sëñ Tuubaa ji ba bo fi jógee da nga len yobul ñaar di nga len naw di nga len weg te bo bo bo xasse rek lolou da fay ragalaat ba ci mouride yi wegoon seeni sëriñ ak nawon len motax ñu mu maas won ci mouride bañ weg len benen bi ci top moo di ni euh, maanaam sunu ndigal li nga xamne moy sunu force tënku ci ndigal danoo dem ba ñun sunu bop ñukoy commencer remettre en cause ñun suñu bopp ñooy commencé néewal doole baat bi nga xam ne si moo ñu mayoon doole parce que suñuy kilifa dañuy wax addu ci mbir ñu jël addu ci safaan ba loolu nag facteur yu bari moo koy waral lu baree baree bare war loolu lu tax ñu àgg foofu da ngay gis benn mbir une question nationale wala une question boo xam ne ça interpelle toute la confrérie mouride da nga yoon war cee jël position mu leer nañ ñu noppi ci loolu léegi nag ñeneen ñoo xam ne nii euh, seen yoon nekku ci wala euh, bu seen yoon nekkee ñu woon a jël kàddu wala waruñu woon a jël position ñu commencé jël position te buñ koy jël dañuy engagé yoon bi yëpp da ngeen di dégg ci rajo yi koy wax ne nun waa Touba te fekk na ay xalaatam dong lay joxe loolu saa quelque part dafa am ñu waroon a wax te noppi dafa am ñu waroon wax te noppi te gis nga boo dee kilifa diine dafa am yoo xam ne ne sañoo ko maanaam képp koo xam ne dangay jiite mbooloo soo waxee soo ne dama ne ñu noppi di la diglu soo waxee ñu dem jëfe ji am na yu yii may bëgg a wax sañoo ko mooy mbir moo xam daa soxal ñooña sañoo caa noppi kon da nga caa war a wax euh, da nga caa war a jël position laa bëgg a wax sañoo caa moo xam ne nii daa soxal ña ñoo ñee nga yilif sañoo caa neutre da nga caa war a jël position bu leer nañ boo jëlee position ba pare da nga koo war a fesal wartu doon loo xam ne da nga koy ngunumee ci biirum nekk wala say say say benn bennaati nit daal ne ah, fii laa ci ne waaye nangam ak nangam da nga war a feeñal ba ñëpp yëg ne yow mbir mii kat fii nga ca nekk boo ko ca jëlee ba pare da nga caa war engagé ñooñu parce que bu leen fàttali nun taalibe Sëriñ Tuubaa yi Les walu aduna, le si mënuñ cee maandu suñuñ cee déjà le fait que ñuy jullit rek le musulman est politique par essence dafa am ben addis bu de boo xam ne moo def n'importe ñëpp di ay politique Moi, euh, man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minhum man lam yahtam bi amril muslimina fa laysa minhum jullit ñi les affaires collectives dans la communauté um était le ci

Euh, bu fekkente ne loolu dafa am yow mi nga xam ne da ngay kilifa jiite mbooloo mi di euh, tax sañu ceemaanu mooy nun bu ñuy jébalu lu ñuy wax jëbbal naa sama bopp adduna ak alaxira waxuñ alaxira kese ak adduna ak alaxira moo tax ab sëriñ sañu ta maandu ci mbiri adduna yi ab ay taalibeem ay taalibeem léegi nag bokk na ci waral problème yi yu mooy dañoo dem ba fàtte loolu duñ jël position ci lu ñu war a jël édifier murid yi ñu xam ne tuubaakat fii la féete ci lii fii la li cay firnde mooy weeru koor bu jotee ñu bari ci ñun duñ seentu weer dañuy woote Tuubaa ndax weer wi feeñe wala lu sëñ bi wax kon nga xam ne ñun sëñ bi la ñuy diglu sëñ bi la ñuy diglu moo tax nag kon dafay jaadu suñuy autorité lépp loo xam ne dafa xew ci réew mi mu soxal waa senegal jullit ñi murid yi bokk ci di waa senegal ñu xam fan la ca Tuubaa féete moo tax ñun sëñ ñoo naat sëñ ñoo naat waaye nag bis bu ñu demee ba ay journaliste ak ay politiciens ak ñoo xam dañuy yëngu ci wàllu li ñuy wax droit de l'homme ak ñoo xam ne ay jeunes lañu nee nañu un nouveau type de sénégalais la ñu bëgg a indi fii dama dem ba ñemee dem ci médias yi di attaquer ay kilifa ak di remettre en cause ndigal dafa fekk na ñun ñoo yab suñu bopp wolof nee na ponkal bu ko bukki dabee ca doxin wala ñun noo dem ba remettre en cause yi nga xam ne moo ñu may doole moo tax ku ñu warul woon a yab jar loola it ñun ñi nga ñi ñuy tudde ay kilifa na nga xamni non la eh, ñi fi jitt won nekk won ko niti aduna yi li len wax sank mun len teranga ju mat sëg ak sur gu mat sëg dafa dem a dem la dem ba ñu ci bare bare bare bare nak li ñaan ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa sa njiir wax nako barkalaw ñu bare bare lo da leen dal ci digënté seen ñu nguur gi waye teranga yi señtu ba ji mu fi def kep ko xamni ni baye nga ko fi diko wéccé alali aduna da nga dem a dem ba day la nga koy teranga yi señtu ba ji gën moko gën ndax li la koy firndeel ana Abdoulaye Wade ana ñi daan daw ci ginnaawam tey ana nguur ga daan kilifa goo xam ne nii defoon nga benn manki manki ci kanamu ab Abdoulaye wadd wala ci ñam àndoon ak moom ngir alali adduna da nga am yaraa nga tey te moo ne boo xoolee traga la jële Sëñ Tuubaa joxoon ak daraja jam la joxoon yow mi ngay yow ba tey màggal yii ñuy def su jotee taalibey sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo la toppoon yow wala toppoon say maam wala say baay ñooy dagg seen i itte bàyyi seenu njaboot jóge fu sori paas ñëw ñooy baas ñooy togg togg ya ñooy defar kafe ñooy daral gan ñoo leen dalal niti adduna yi dañuy toog ba ca suba ga ba ca ngoon bañ ne cérémonie officielle ba jot na ñu doo ko daanu si ñu yóbbu leen ci fu gën a sedd jox leen xéewal yi gën a bànneex ñëw fii nag ak ñoom ci jataay bi di jayante ak ñoom ma ne ñooñu bu ñu demee ba nga dellu bëccëg taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoom ak seen i seen la woon ak say maam dem ak seen i baay ak say baay tey yow xamuloo li nga xam ne moom la la Sëriñ Tuubaa defal xamuloo moom la la Sëriñ Tuubaa moo tax yi nga xam ne si mooy teraanga ji Sëriñ Xaadim wax na ko léegi te mooy li wér Sëriñ Tuubaa mooy ki jara feejal gis nga bokk na ci yi ñu néewal doole mooy suñ kër këraan yi ñu commencé naatal suñ kër këraan yi ku nekk daal defe ne sa kër la ku nekk di ràcc jëmale ci sa bopp te ki ko kenn dong la xaw ma weneen yoon waaye yoonu murid kenn rëyu fi kenn tollu fi nen ba la cay la nga yor buñ ca génnee la cay sëñ Tuubaa nga def dese fa dara du kenn moo tax nag kon bu fekkente ne bëgg nañ doole ji nga xam ne si moom la sëñ Tuubaa sose woon yoon yi xalifa mi ànd woon kook moom ak mag ña bu fekkee bëgg nañoo des ak moom suñu digg ak ñeneen ñu dul ay julit des ak moom suñu digg ak yeneen bokk julit yi des ak loola ak suñu digg ak état bi dañuy delluwaat ca loola te mooy baat bi doon benn ñun ñëpp ñu xam ne ki waral yëfi sëñ Tuubaa dong la ka nga xam ne si moo togg moo duggi woon ñëw togg añ bi yàq yore genn ci noir di ci baate sëñ Tuubaa rek la li fee nag xàmmeewuñu loolu dem di wut sëñ beeg ay keneen na leen wër ne dañuy néewal suñu bopp doole fi may daanale mooy Sénégal ci boppam euh, li tax lu baree bari di leen tam te danañ ci yéex a jug li fi lii ma leen bëgg a wax ràññeewuñ ko mooy Serigne Touba ni ko yàlla def ci réew mi te ñu umpale ko ñaari wàccuwaay la Sëñ Tuubaa am ci réew mi benn bi nun taalibeem yi dong la soxal mooy Sëñ Tuubaa sëriñub murid yi kooku nun dongaam yi la soxal te nee naa bu wéet bu dara desul lu wéet te cee wet Sëñ Tuubaa taalibe mooy sunu sëriñ waaye dafa am geneen wet goo xam ne ñun ak waa Sénégal dañ cee yem ci sëñ bi te Sénégal lank bañ a jël wàllam mooy Sëñ Tuubaa ëpp na doon kenn ci mag réew mi Sëñ Tuubaa ëpp na loolu kenn rek ci magi réew mi ah, Sëñ Tuubaa ëpp na loolu Sëñ Tuubaa héros gis ngeen boo demee Inde noonee ñu def Mahatma Gandhi nga dem Chine Mao Tse-tung nga xam ne si ñoom seen référence la ñoom donc duñ fa ay ay doomu réew ma yoo xam ne produire la ñu dara servir nañ seen réew waaye dañu leen jël def leen ay héros national def leen référence di dellu ci ñoom. li feek Sénégal nag xamul wàccuwaay boobu yàlla jox.